Assalamualaikum warahmatullahi ñu leen di nuy di leen ziar di leen bëggé bu baaxa baax ravi de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne a Pro avec un immense plaisir compte continuez leen di abonné ngeen bëss cloche notification bi bu ko défé bépp vidéo buñ duggal ngeen mën ko am à temps réel bu leen faté di like vidéo manam diko aimé di bëss ci baram bi bu baaxa baax waye timit di partager di commenter dina ci am solo lol da fay tax vidéo bi sori ba ñëpp man ci jot Comme on a l'habitude de le faire, nous voir sur ce qui concerne l'actualité politique sénégalaise. Président Bassirou Diomaye Faye def doon la convention des jeunes reporters du Sénégal dirigée par Migui Marem Ndiaye Fofu, palais de la République ngir ñu waxtaanee jafé jafe a nga Presby ni presse bi ñu ngi koy de président Bassirou Diomaye Faye qui président fait cadre kàddu a xamante ni kàddu yu am la pire patron de presse yi ñu déglu ko pour l'investissement et pour la création d'emplois C'est ce que l'État mën a def dina soutenir ci mais quand tu as nga dem de la des impôts ci journalistes yi téye ko parce que tant nga ça yoo ko defee ñu baal il y en a qui ont prélevé comme ça sur les journalistes retenus à la source sur salaire sur des personnes qui ont fait des prestations pour eux, retenues sur 5% versées au tiers, qui l'ont fait sur la TVA. Mhm. Et la TVA, vous savez là. Mais c'est pour sur les, les, les, la publicité mhm. et les annonces. Vous savez, dafa am ñenn ci patron de presse mec Sénégal ñoom lenn rek règle qui est mooy chantage dañ ko un def Ablaye Wade mu ñu ñëwaat di ko def Macky Sall te xam nañ Macky Sall bu baax ne dafa ragal ku koy critiquer ragal ku ko contre Macky Sall soko ko wala nga koy critiquer dina def le tout pour ola na la ñëwal so ñëwé mu jox la poste wala mu laaj la nga bëgg su fekkee patron de presse nga soit daf lay nommé fenn ngay am ay privilèges ak ay avantage wala mu outal la ay convention ci nguur gi ngay mëna ganya gagné ay publicité wala nga wax ko li nga bëgg mu defal lako mais nang ko may jamm so bañé nak comme pap alagna ak ñom seigne salou gey ñeneen ñi nga xamné ne bañ kat lañ waawal fajar yi fay commencé di acharné wu ci sa kaw tu es l'homme à abattre mom non lay fonctionner même nekké euh politicien sax soit nga nekk ci opposition bi wala nga nekk activiste boo contre contré tamit ça se passe toujours comme ça ñëwal Andegman, ak man teraanga jaa ngi ko man dama am ngor am lumay bagn bañ la kaso wala ma dal sa kaw yak sa aduna secteur bo dem ñi ko doon defal sal boulot fof moy ñi gëna bon ñi gëna yees ci secteur bobu bo demee ci magistrature bi les magistrats les plus corrompus la pourriture de la magistrature nous avons fait le sale boulot ci presse pareil les journalistes les plus corrompus les journalistes alimentaires boo de ci police pareil gendarmerie pareil Si vous ci këru pareil boo demee ci milieu Wekadi. yi pareil mbër pareil société civile bi pareil influenceurs yi nga fait des ñoom saga, avons fait la soxla mais soxlawul ñi nga des choses ñom dañuy wax wax yu jup yu correct wax yu yiw soxlawu leen il faut nga nek saagakatu ndey ba mom bokay saga nday sax mom dalay recruter mom mom bëgg na mom na nga bàyyi diko saga saaga daf naa la saga yi nga ma doon saaga baal naa ko graw léegi del saga Ousmane Sonko rek man bëgg na mom non la don fonctionner quoi manam leppam dafa salté léegi nak ñi nga xamanteni ils sont pas honnêtes ils sont malhonnêtes te nek ay patron de presse loolu lañ xam parce que Macky dafa yàgg di manipuler la presse Bobu mu ngi ministre de l'intérieur ci moment bobu la am ay journalistes spécial yo xam manipuler contre Idrissa Seck parce que mom il visait la place de Idrissa Seck Idrissa Seck est nekkone premier ministre pa bi gëm ko wóolu mu un premier ministre puissant Il nak mok ñom Souleymane Ndéné Ndiaye ak Karim Wade ñom Farba Senghor ñu def un clan ne légui dañuy xex Idrissa parce que Idi mo len di xagn faire wara am ñom ci pa bi donte Macky bobu mu ngi ministre de l'intérieur mais clan en utilisant la presse ñuy dal ci kaw Idrissa Seck yenn journalistes yi ñu fexé ba jaxassé Idrissa Seck ak bi ba Idi daanu mom mu jël la place de Idrissa parce que Karim Wade sax mom proposé papam même post ministre de l' intérieur bi Karim moo wax papaam na ko pourquoi pas Macky bi mu dàqee Idi tamit Karim ñëwaat waxaat laa même chose papaam na ko pourquoi pas Macky mu def ko premier ministre du Sénégal léegi bi mu ko defee premier ministre nag Macky gën a am doole ubbi benn rajo bu tudd seen Info ñëw Ablaye Chakor fay ñoo fa nekkoon bu nekkoon Sud FM ba pare ubbi benn journal bu tudd Il mi di jox ko Ndiogou wàkk Seck ñuy saaga Idrissa Seck suba ngoon deg bëccëg te bobu Idi il était en prison manam gis ben cadavre di tirer ci kaw cadavre bi donte mok Idi 6 six ak 9 la ñom ñaar ñoo yem parce que njëkk naño xex ba paa bi dàq Idrissa Seck ci gouvernement bi légui ñu retrouver wat en 2012 bi Macky amee ak Wade problème ba créer partem ba dem à la conquête du pouvoir dem premier tour avec Ablaye Wade deuxième tour nag ñu dajewaat moog Idriss Seck di jàppale ko te il n'avait pas le choix mais gis nga bi mu ko jàppalee dañoo dawal quelques mois rek di retiré wu ci coalition bi muy Macky 2012. Les ñu dem ba mu yàgg ba 2019 ci élection présidentielle avant élection yi Idi ak Macky gisee waat tek deal jàppale Macky Sall Macky Sall sàcc élection yi moom mu nek ci opposition bi def semblance té li mu doon def gëmu ci dara Macky ne ko su ma après yooyu yaay ñew so ñewé ma jox la conseil économique et social environnemental bu ñu demee ba ci kanam man duma def 3e mandat après yow lay def sama candidat nga remplacé ma idi ci condition yoy la démé won ci Macky Sall far Macky wor ko kon ñoo ñaar ñoo yem ay workat lañ ay tekkatu diil lañ kon Macky ku yàgg regal tres la bi mu faloo nag journaliste yi nga xamante ni dañoo contrôle Ablaye Wade di attaqué Ablaye Wade moom di ko ci boolewaale parce que moom ci gestion Ablaye Wade la bokk ñëpp la fexe pour jëm leen a récupérer nga xam ne moom dootul amati journaliste bu koy critiquer wala bu amee tamit du bëri ki mu njëkk a recruter ci journaliste yi mooy Souleymane Jules Diop parce que ma nga woon Canada di def émission bu tudd dégg-dégg. tous les mardis ci Seneweb rajo ñëpp daan ko déglu muy yàq Ablaye Wade lu mel ni xeme di yàq Macky Sall lu mel ni xeme dem na sax ba ne Ablaye Wade day fontoo Sénégalais yi nan la mën a jëlee nit ku mel ni Macky Sall ku waaye di comme Macky Sall di ko def ministre nee na Macky Sall méritowul pour nekk ministre Manam, xas bu nekk rek daan xas Macky Sall léegi nag mu xam ne bu jëlul Jules Diop Jules day continuer nekk Canada di attaquer. attaqué ci la dem nag jëlee Jules Diop na ko ñëwal Jules Diop ñëw mu def ko ministre jëli Abdou Latif koulibaly mi nga xamné da daan yak ni mok domam Karim à travers ses ouvrages bi Ablaye Wad livre bu mu bind moy un opposant au pouvoir l'alternance piégée yak ci lu ni ba daf ci ay yu ci avion bi nga ni dam jaay ko ak li mu doon wax dëgg la mais taxul moom mu gëm dara parce que moment boobu su ko Ablaye Wade owoon comme ni ko Macky Sall owee def ko ministre day noppi dafa bëggoon ko ko oo far Ablaye Wade owu ko ñu demaat ba mu yàgg mu bindaat beneen livre boo xam ne tamit wax dëgg yàlla révélation yi mu ci defoon yépp dëgg la muy affaire yu annonce bi scandale yu ci amoon mu tuddee ko comptes et mécomptes de l'annonce daf ci ay révélation yu jéggi dayoo waye bi makki ñëwé bi mu ko owee ko ministre mais makki mu doon def pire que Ablaye wad mais mosoo leen a dégg Latif Coulibaly génn dénoncé li Macky Sall di def légui su fekkon mom lam doon yak Ablaye wad ak lam doon yak doomam Karim wad su fekkon dëgg la ci mom daf ko gëm su fekkon patriotisme dëgg motax muy wax non bu makki defee pire que ça day démissionner il va rendre le tablier mais dafa ko dafa tok parce que palais ba neex na amna ay avantages ay privilèges nek ministre nekone sax porte parole du gouvernement mu tok nak bañu djign magam corruption ben magam bul bok conseil constitutionnel muy Cheikh Tidiane Coulibaly mu xam Macky Sall mi sax paré na djéxal na parce que doful ji ne ko xam luy ñew mu né démissionné na ñeneen ñi doon attaquer Macky Sall ci débém Madiambal Diagne Madiambal Diagne comme ni mu sonalee woon Ablaye Wade noonu la sonalee woon Macky Sall ci ci début bi moom it mu fexe ba approché wu jege Macky Sall Macky utal ko ay convention muy am ay publicité ci journalam bi di Le Quotidien ba pare ci mbiru suuf Macky Sall yombalal na ko lu bëri pour mu mën a nekk benn agent immobilier boo xamante ni day tabax ay kër di jaayaat moom daal fexe na daal ba ba ba def ko milliardaire ba am ba am kalis kenen ki moy Mamadou Ibra Mamadou ibrakan, ñep ñëpp xam nañ jaar wal fajir la jógee jógee fa dem ci groupe Futurs media bu yusu Ndour momit amna moment bo xamne da na def ay chronique di attaquer Macky Sall dem ba mu yag mu approcher wu jege am ak Amadou Ba relation yu bax ñu jékki-jékki Amadou Ba nek candidat mu ñew ne créer na ben mouvement demee ndeke mouvement bam koy créer lu mu bëggoon moy tok bam yag ne candidat la toogaat ba mu yàgg ne nekkatuma candidat léegi damay soutenir Amadou Ba léegi mu dem nag soutenir Amadou Ba far perte waaye dalay wóor ne temps yi gars yi nekkee ci nguur gi moom ni mu doon dundee train de vie bi mu doon mënee ak seen rajo bi nga xam ne ubbi nañ ko ak télé ak journal seen groupe de presse boobu da ngay xam ne mbir mi du neen parce que ñoom amuñ xaalis bu ñu ubbee. entreprise de presse bu toll noonu wax dëgg yàlla ñun xam nañ li xew Sénégal moom it gis nga ko bénéficié wu na lu bari ci nguur gi moom Mamadou Thiam magu uree Thiam bi ñoom ñëpp dañ daan attaqué Macky Sall Tunkara da daan attaqué Macky Sall donte du journaliste mais dafa amoon benn émission 2S moom it gis nga or nañ ko mu ñëw Yoro Dia journaliste début bi dafa doon attaqué Macky Sall di def ay

boobu la noppi di acharné wu ci kaw Ousmane Sonko di saaga suba ngoon guddeeg bëccëg mujj gi sax après bàyyi na quoi xam naa bon Guy Marius Sagna moo ko loo quoi parce que daf doon attaqué gii Marius Sagna ak Ousmane Sonko Guy Marius Sagna ñëw envers lui bi mu feebaree mu ñëw set si ko xam nga ñëw na ko jàmbaar jógal xam nga gii moom ay jikkoy wàllu wi la amee quoi léegi nag finalement mu ruus nag attaqué tul Sonko mujj gi quoi mu toog cool calme quoi ak yeneen journaliste. mut ban mo fi dakhona a attaqué Macky Sall bañ jàppoon nañ ko fi sax tejj ko fi mais mujj gi Ousmane Sonko le singili diko attaquer diko di te ñom ñëpp ñu dal attaquer Macky Sall après dañu mujj di attaquer Ousmane Sonko loolu mo lay wan mbir mi du neen parce que Macky Sall boko contrer en tant que journaliste daf lay wax na la ñewal so mu am lu mu la jox pour nga may ko jamm soit poste lay doon wala mo ubil la yenn opportunité yo xamné di nga mëna a am xaalis nga koy défendre ba paré di attaquer son adversaire moy Ousmane Sonko ñoom ñëpp mujj gi dañoo ko nek ci lool di attaquer Ousmane Sonko rek suba ngon bu dégg ba ceg lutax ñuko doon def moy sen intérêt bëggon Macky Sall tok fi wala ku melni ni Macky Sall comme Amadou Ba tok fi continuer ñu continuer di nos ba paré tégal leen ci nak né du ngeen fay impôt maanaam dañuy ameel impôt bor bu bëree bëree bëri su ko defee Macky Sall di leen appuyer di leen dimbale xoolal Maïmouna Ndour Faye ma nga nekkoon Canal Info chaîne bi nga xam ne Karim Wade moo ko ubbi woon joxoon ko wenn grand bu ñuy tuddee ay dara léegi nag bi ñu jàppee Karim Wade tëj ko dañoo saisir matérielu Canal Info bi tas Canal Info soxna si nag moom daf na ay pexeem ba jege gaa yi bi mu jegee gaa yi ubbi teleem te ñëpp xam nañ ne amul ay moyens yu mais gars yi la gënoon a jege wax dëgg yàlla moom it mu ngi doon bénéficié wu ci nguuru Macky Sall di noos dawal oto bu rafet am kër gu nice nekk ci condition yu bien ubbi entreprise de presse emploie employé ay nitam di leen fay. ba pare seen reporter yi ak seen journaliste yu ñu employé ci ay coono yu métti la ñuy nekk ay salaire yu misérable condition yoo xamante ni condition yu inhumaine bu ñu demee reportage. coono yi métti la ñuy daj léeg-léeg duñu am sax oto bu leen yóbbu reportage dañuy dugg car rapide wala ñuy dugg ci tataay dem reportage ñëw lépp rek ngir bëgg seen métier ñu leen di exploiter waaw yow yaa ngi exploiter nit ki léeg-léeg sax nga yoreel ko salaire doo ko fay la nga ko yàgg dagg depuis ba nga ko embauché ba léegi nga ne dañ koy verser état bi nga jël ko defal dugal ko sa poche mais yow kon détournement deniers publics nga def sàcc nga loolu mooy dëgg léegi privilège yooyu yëpp Macky Sall defaloon leen ñii mënuñ leen ko defal parce que président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko mais du ñu benn li olof di wax naan ku war ñay ba wàcc ko lépp loo waraat rek day ndaw ci yow parce que ñii impôt et domaine lañ jaar nekk ay nit ñu jub impôt et domaine lu fa xew nit ñi xam nañ ko teenu xaalis moo fa nekk ñii di tànk di naan ba seen biir yi fees tànk yóbbu seen kër boole kaag di sangu di paccax paccax mel ku nek ci piscine ñom bi ñu ñëwee lu ñu njëkk a def mooy imposer fa syndicat teg syndicat bi Ousmane Sonko jitté ko buñu paré paree Bassirou Diomaye Faye moo ko remplacé ñaar boole ñu bokk ben jikko bok ay valeur di ànd ba créer parti pour dem à la conquête du pouvoir. kon ñoñu defe naa ne bu len alal intéressé woon wala ay privilège ak ay avantage ku noonu impôt domaine googu fa lañuy tok def ni sen yenn morom mi di sacci am ay terrain am alal ju ne gàññi mais defuñ ko mais dañ ne li xew ci réew mi jaaduwul nañ créer parti dem jëli réew mi défar ko sans jikko yi lool rek motax ñu laaj réew mi ba yalla Pas leen ci bop réew mi ak sénégalais yi bëgg ko parce que yalla def na inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim man ta am mukk luddul askan wo ñom ñoo jël ne dañoo bëgg suñu réew mi ko waaye yalla mënul rek soppi dekk non askanu ñoo jël bëgg ko yalla jappal leen ci motax binyuk sénégalais yi biñu joggé né dañoo bëgg soppéku tombé Ousmane Sonko génn indil leen programme bu ñuy tuddé euh, solution and ak ñom président Bassirou Diomaye Fay ñom ñop ñu gis ci seen bop ba pare ñuy def politique autrement manam politique bo xamné ku nekk président ci ñun ñi baxna du Ousmane Sonko rek mom mo wara nekk président buñu ñu Ousmane Sonko nga do fi nekké président kenen mën na ñëw remplacer ko lu nek ñu daj ko nak ci dix ans yi ñu créer seen parti 2014 ba 2024 ci emprisonnement dak ci Ousmane Sonko impôt et domaine agressé ko ci corniche bi toj vitram asperge ko liquide wa passer fi cadre yëpp ñu japp leen tëj coono bu nek ñu daj ko président Bassirou Diomaye Faye ñu japp ko tëj ko kasso ci benn post Facebook bu mu defoon bo xam Ousmane Sonko sax mo taxone mu mer ba bind euh, post bobu non ñu japp ko ci. waa ñooñu fu ñu jaar yëpp Macky Sall jaaru fa Macky Sall masul sax am garde à vue ñooñu ay journalistes yu ndaw yi nii des patrons de presse yu tekkiwul dara mën nañoo ñëw naan dañ leen di chantage pour ñu woo leen na leen ñëw leen ñu neexal leen jamais ñooñu lu ñu daj journalistes yooyu sax dajuñ ko ci seen àdduna sénégalais yi wóolu leen jox leen nguur gi ngeen da ngeen di continuer pour di leen attaquer pour ñoom ñu abdiquer o abdiquer oo leen na leen ñëw leen ñu jox leen poste wala ñu jox leen xaalis ba pare defal leen ay privilège pour ngeen bañ a fay ay impôt utal leen ay convention ngeen di lekk xaalisu Sénégalais yi te tegu leen ko ci yoon non non non non non loolu lu fi amee moo tax président Bassirou Diomaye fay ne leen da ngeen di fay impôt parce que mënu leen di dagg impôt ci seen salaire employé yi ba pare mais da ngeen koy verser nguur gi mais du ngeen ko verser nguur gi mais loolu comme ni ko Ousmane Sonko waxee woon mooy dëgg mënu fa nekk di def allusion ci Ousmane Sonko parce que président de la République la dafa war a tëddee njaaxaanaay mais moo Ousmane Sonko ñoo bokk benn gis-gis ci loolu xam nga Ousmane Sonko dafa leen waxoon ne leen détournement deniers publics ngeen di def ñoom ñu mer génn di saaga président Bassirou Diomaye Faye ñëw confirmer la même chose ne leen quarante milliards yi ngeen ameel Sénégal mais loolu am na fu mu xaj ci la ñu war a tabax ay tali tabax ci ay hôpitaux defar ci ay infrastructures yoo xam ne pour sénégalais loolu xaalisu sénégalais yi la sénégalais yi ñoo koy cotiser pour seen réew.

bala ñoo dé ñu nan ay journaliste moy 4e pouvoir man lool mo suma ci d'accord ci milieu bala nekkoon nak nekkoon na fa du ngeen ben 4e pouvoir lutax ngeen ngeen 4e pouvoir yene ñan mais ay journaliste ngeen rek comme médecin bi comme avocat bi comme magistrat bi wala ñeneen ak ñeneen métier bu ngeen choisir diko def kenn waru len fay defal statut spécial ba yeen ngeen di liguey yoré entreprise am ay redevance ngeen wara delo delloo état bi ngeen du ngeen ko def pour lan suñu waxe ñu ne Macky Sall mo ñu balon Macky Sall lutax mu leen di bal parce que da ngeen ko doon defal sal boulot di ko nit ñi muy def ay bêtises dekk bi di tak ngeen dañ ko genné nek complice am ci ñaaw doon def am patron de presse yo xamné ñi dé am nañ ci responsabilité dekk bi Macky Sall talon ba nit ñi am ci ay gañu gañu ñi dé ci ñi ñak ci sen alal ñi ñu tal ci sen ay station événement de mars 2021 et juin patron de presse yo xamante ci am part de responsabilité xam nga lutax parce que ay complice Macky Sall yow ngi journal wala nga ubbi ce wala télé wara informer sénégalais yi ba paré nga ne informer Macky Sall di def ay ñaawteefam dëkk bi di tak ñi di manifester ngeen bañ ko ñi y ay gens ñi tek ay théâtre ñi ay film kon ay

traitement spécial laa war a am kenn waruma ko impôt dañ maa war a baal impôt impôt yi président moom mu ko ba koy baale sénégalais yi ñoo ko moom te ñëpp war a fay impôt te man li ma gën a métti ci journaliste yi ñoom am nañ droit ñoom bindeel nit lu leen neex di xaste lu ñu def c'est pas du journalisme am na si ñoo xam ne lu ñuy def c'est pas du journalisme acharnement la ñuy def dañuy jël nit singali singali la di la attaqué di dugg sa vie privée di la xas di la sosal mais si toutefois yow nga def dara rek ñu ne da nga da ngay acharné wu ci seen kaw quoi comme par exemple wax nañ fi Ousmane Sonko lu nekk yàq ko lu mel ni xamee sosal ko fenal ko ak ñoom Bassirou Diomaye Faye mais suñu leen indilee redressement fiscal ñu ne non euh, ñoom ñoo activé waa impôt pour ñu ñëw dal ci seen kaw ay Babacar Fall mu réew moomu di toog di raconter di n'importe quoi otin man Ousmane Sonko dafa bëgg nax naax press bi té lool dara du ci dëgg yow nit ko xamné pendant des années sosal ngeen ko fenal ko xas def lu nekk mu falu yeen bor yi ngeen yoral impo ko ko impo bo mom xaju gol bay falu mu falu tombé ñu indi defal leen redressement fiscal ngeen ne mom la ba paré bëgg ko soppi def ko guerre contre yeen ak mom mais loolu man ta nekk moom jotewut a yéen dara daf leen wax ne leen da ngeen war a fay seen impôt te da ngeen koy fay par force mënoo leen a fexe ba du ngeen fay impôt yi saaga leen xaste leen wax lu leen neex mais nag léegi moom dafa am fu muy yem moom saaga yi moom dafa am fu muy yem parce que Ousmane Sonko bu nekkee dans l'opposition da ngeen daan saaga di xaste bu demee porter plainte ñu naj plainte bi kenn di ko diligente mais léegi ku fi saaga dañ lay porter plainte bu laajee ñu tëj la bi dañ lay ci kaso bi du menace du dara nag xam ngeen lu tax parce que nous sommes dans un état de droit maintenant xam nga Ousmane Sonko moo nekkoon koo xamante ni moom amutoon benn droit temps yi Macky Sall gars yi dañ kaa defoon benn genre poubelle lu waay jot ñëw xapp ci kawam waaye léegi nag loolu moom jeex na bañul ngeen critique ko waaye nag ay xasteeg ay saaga yooyu moom dafay jeex te wax na leen ko salaamaaleykum wa rahmatullah